ay militants lu ni toll am nañu ci ay sympathisants lu ni toll kon nag nañu ko affronter rek te def ci sunu taxawaay gis naa nag mbokk mi keroog ca xaw ma faram fàcc la xaw waaw façon bu ne wiir wiiree na ko <laughs> pour jéem a piéger Alioune ba wax wax baatu parachutage waaw waaw nit ñi doon muye muye seen bubbu booba ba tey nag ah ñu romb fi dem jëli la yow ma moom loolu jarul mu di ko lijjanti waaw jarul mu di ko lijjanti waaw façon bu nekk ak la soxna sa doon laaj ca grand théâtre est-ce que bu ngeen jëlee yëf yi du ngeen dem di woo nit ñi pour def guddi àjjuma ca palais ba xam nga boo boo xamul nit ay détails rek ngay wax yow nit bu la gën a sérieux gën la déterminant gën la xam li xew ci dëkk bi gën la xam boppam xam fu muy teg tànkam boo ko dee wax yenn détails yi moo lay xamal ne xamuloo ko waaw ak ñi bëgg a def lay nan parti religieux yu kenn xamul mooy li leen Alioune wax ni leen Serigne Moustapha avant d'être un marabout mais c'est un citoyen hmm, à entière ah, waaw ñu di ma wutal carte d'identité di ma wutal carte électeur waaw te pourtant duñ ca bind marabu de waaw ba tax na kon jarul yenn yi nañ ñu bàyyi rekk ñun lu ne bu waxtoom jotee ñu doon loola waaw te dama ko mas a wax Abdou Diouf boobu dama am ay collaborateur ci biir gouvernement bi te maa ngi koy am ba tey ñu dem dajaleel ma bulletin de renseignement yi ñu bind ci daayira bi yépp jox ma ko góor gi wax ma ni ma Abdou daf la jox rendez pour nga dem ngeen waxtaan bi ñu ñëwee ñu toog di waxtaan waxaguma ko dara mu bàyyi rek muy dem di wax di dem di wax fekk boobu mooy bi ma defee sama candidature 2000 pour mu nax góor gi mu ni ko mën nag wax yàlla du ma dem di defanteeg sama doom ma ni foofu doom newu fii affaire responsabilité la waaw naka la wax yooyu yëpp ba noppi nag ma daal di soog a génne kayit yi teg ko ci kaw table bi ne ko dama bëgg nag tey nga wax ma est que je suis un ami ou bien un ennemi parce que boo ci bëgg rek pare naa pour jouer ko mu daal di tàccu ni ma la man sañ naa loolu yow di la jàppee ennemi ma ne ko ah déet lii ci kaw taabal bi kat loolu la nëbb la nuru man ko bi ci des war naa dem ñu def suñu colloque nga jox ma ay lettre de recommandation pour fu ma dem ci réew yi ambassade du Sénégal mu fa nekk ma jox leen lettre bi pour ñu toppatool ñu ay rendez-vous pour ñi ñu war a jàppale ci colloque bi mais dem naa ci benn benn ambassade fekk sama njaboota nga fa mu ni ma baye boo nga bañ a sonn ci wër parce que lettre yi nga yor ak yi ñu yónnee bokkul lu contraire ak liñ la jox ci sa lettre moom lañ wax ma génne loola fekk xam naa ci copie ma jox ko mu mel ni nag nekkatu fi ba jàgg mu tudd benn nit ni ma lii diwa ko def ma ah, kooku nag yow yaa xam yaa koy lijjanti pour wax la dafay am yu lay reeloo doo ko mën a firi fan yii passé maa koy dégg ci seen conseil présidentiel bi Macky Sall di ko wax dafa bëggoon ñu toppatoo affaire daara yi fexe ba xale yi bañ a nekk ci daara yi rekk jàng kese kese mais ñu di leen toppatoo ba bu ñu paree ci daara yi ñu di leen former ci leneen loolu mujj xëy ndax ci moment boobu la ma waa banque islamique woo ba ma ñëw fële ca Jadda ñu yëkkati projet bu mel noonu ni ma Mauritanie lañ ko bëggoon def mais dañoo xam ni Sénégal ñoo ko gën soxla léegi nag financement baa ngi nii ñu teg li ñu bëgg rek mooy nga dem ci seen gouvernement ñu def benn lettre de confirmation boo ko indee rek ñun ñu seet ñi nga xam ni ñoo war a def projet bi ñu financé ñoom ñu defar ko pour yéen te projet bi paasewul daara yu nga xam ni dafay am dortoir et mais aussi am ay atelier xale yi bu ñu jàngee suba gi ba midi ñu wàcc dem ñu defaral leen seen añ ñu julli bu ñu paree dem seen atelier ñu defal leen formation professionnelle ci ni ñu ko tërale bu ñuy dem ba jeexal seen cycle ci wàllu lislaam moo ñu jot seen diplôme professionnel benn lay doon noonu la ñu projet ba man bi may ñëw xaw naa fakastalu sax na yàkkamti bi ma ko waxee Abdou mu ni ma yow daal lii lañ doon wut booba ba tey kon yàlla dimbale nañu ci ni man d'ici quarante-huit heures dina wax Tanor mu def lettre bi pour nga jël si ko ne dama génn rek mu daal di téléphoné beneen sëriñ ni ko kaay jël projet bi ah sëriñ ba ñëw ñu yëkkati projet bi jox ko ko ne ko demal Arabie Saoudite ñu financé la ko sëriñ ba dem ñooña lànk ni ko yow taxaw woon ñu def projet bi te xëyu ñu xëy rek jox ko ñooñu pour ñu def ko dañu def suñuy enquête ba xam ni ñooñu ñoo mérité pour def ko parce que seen organisation ak seen discipline yegg na ca waaw wax la kon ak yi xew yépp Ablaye Wade ñëw moom itam di la wan ni la mag yéene woon démb ba ñu xëy France dallu xëddeen ndax dafa mujj di menacer ñoom Idrissa Seck ni leen sëriñ yii bu leen leen dugal ci sama yëf bàyyi leen ak ñoom waaw ma ni pat pour wax la lu bokk la nag yu mujj yi ay sëriñ di ko dox keroog bi góor gi wuyjee boroomam ba mu am ñeenti fan lañ koy wax yépp ñu wax ko pour wan ko ni ko sëñ Cheikh moo waroon nekk seen blocage sëñ Cheikh nekkatu fi ni ko xale bi daal lu ngeen mën a def pour bloquer ko na ngeen ko def quatre-vingt-cinq mille plaintes procureur waxul sax lu ci jëm ana sunu terrain bi woon fii duñ bëgg a taal dëkk bi ñu nu ñu di d'ici deux mois ñu réglé ko boobaak léegi sa fait deux ans projet yi ñoo amoon yëpp war ko fee def mënuñu ko fee def ñu bloqué ko te ñiy indi problème bi yëpp ñu sant si la ñoom pour wax la bu di régime bu ñëw ñu xabtal la sunu kaw régime bu ñëw ñu xabtal la kaw te ñu nit am na lu ñu bañ parce que it ngeen baal ma kenn xamul seen mbir ku la ciy nuyu di ree fekk ci suuf ma ngay wax leneen waaw loolooy tax lu bari doo ko bëgg a def waaw walla ñu wax ak yow lii ba noppi nga cay dugg doo gis kenn yàgg sa waa kër rek yéen a cay des waaw man defe ni kon nag moo tax man lu mu mën a doon bala ma koy accepte danaa ko seet ba xam luy tax ma di ko nangu ak lu tax duma ko nangu waaw bu ko defee kon nag fi ñu jëm li xew démb ku mu yeewul dara dootu la yeew waaw bu ko defee mu des la ca des nag te mooy conseil constitutionnel ñu ngi leen di xaar ak pied ferme waaw bu leen ko jaralee fa xayrun parce que bu boobaat du ñu am affaire ak gendarment wala policier ñoom la ñuy amal affaire directement waaw buñ ko ñemee rek ñu ñeme ko incha allah waaw bu ko defee kon nag duma ko ragal a wax ndax Sénégal nga baal ma dañu bari ay fumiste kii de moom xanaa ay rek la bëgg bu ma bëggoon ay kon ba léegi réew mi farna bu yàgg waaw yàlla xam na ko waaw ba tax na nag le sëñ Babacar waxoon sëñ Cheikh nag mu gu dul dakk kenn du ca dëkk waaw parce que li ñu tëral ci ay plan yëpp ñun am nañ ko xam nañu yëpp affaire Sonko yi ñuy wax yëpp la ñuy waxante ci seen biir yépp mu ngeeg man dafa am lu ñuy xaar rekk duñ ko yàkkamti waaw bu ko defee nag Sonko li ma koy ñaan rekk mooy na aj boppam ci yàlla bu mu aj boppam ci kenn mais na aj boppam ci yàlla ndax yàlla moom bu noppeegul lu waay defit doo dem fu sore waaye bu noppee rek jeex na waaw lii jëkku fi ci moom bu may xool yi xew démb yii yëpp dafa may fàttali keroog bañ ma waree jël si pour yóbbu ma procès ñoom Cheikh ñoom Serigne njaay gi nii waaw Dakar mel ni day bëgg toj ñu génne char de combat yi waaw buntu Dakar yëpp ñu teg fa ay char de combat waaw jigéen ñëpp dem duggi seen marché une semaine avant waaw ndax ni tey la dëkk bi di tàkk waaw génne police yi woon ci àddina bi yëpp pare nag pour ñoom li leen ci gën neex mooy le fait que Moustapha ñu dugal ko ci seen panier à salade yooyu waaw di ko yóbbu tribunal policiers yi topp ci di daw fii ko defee njaboot gi di jooy lu soxna su fi waxoon benn njaboot ni ko bugguma fee gis rangoo ñu benn njaboot moom soxna su fi mu ne leen te seen jom nekkul ci ngeen di da ngeen di fekki Moustapha prison ba seen jom mu ngi ci ngeen taxaw gannaawam ba lu ngeen war a faj ngeen faj ko waaw ba tax na kon loolu moo fi nekk waaw dëkk bi yépp yëngu ku ne naan nangam nangam am ci ku sant si dañuy def seen réunion ca kër faamara Sagna pour nan lañ may arrêté te borom kurus yëpp ak borom kaala ya ña nga fa toog surtout ñi sant si am ci ku jël parole ni ñun li ñu bëgg mooy ngeen yaral ñu sunu doom am na ci doomu nijaay yi ak doomu bàjjen yi yi wax jamono yi di tiitaru te ñu nga woon ca biir daje ba parce que ñoom ñëpp ay agent de renseignement lañu waaw dañ leen yebaloon ci kër góor gi ñu ànd ak yenn doomu góor gi pour renseignement bu ñu fa am jox leen ko pour wax la kooku la góor gi forcé ni ko wax ma la fa xew mu nettali ko de A à Z lañ fa wax yëpp góor gi ni kon nag baax na waaw ma ba ma ñëw mu ni ma roi la